nek da ngay ñew ak say inquiétude bu ñu mënul nangu nak di déglu inquiétude ak suñu message ñu ne leen ñun baxna parce que ñun fii ñëwuñu fi vraiment pour di tàccu ak ngeen di wax ñuy acquiescer suñu message moy dañu wax acteur du processus électoral dañu né dialogue entre les acteurs du processus électoral ñepp xam nañ ni Khalifa Sall acteur clé la le processus électoral Nous xam nañ ne Khalifa Sall wone na ni volonté ni participer à ces élections yi nga xamante ni day ñëw mais Nous ñun Manko Taxawu Sénégal dañ ko jël def ko suñu tête de liste mu nekk candidat comme yeneen candidats yëpp am droit campagne ñu fait ko campagne Nous avons ñu def ko député mu am immunité parlementaire Nous avons dee amul immunité parlementaire ñu paré ñu xey dem assemblée ne immunité bi nga xamante né won nañ amuñu ko amu ko dañ koy dem pour lever ko mais ban Sénégal lañu ñu nekk boo xamante ku nekk opposant Macky Sall rek da nga wara tit da nga wara jaxlé parce que mën nga xey suba ñu takal la dara jël la né la rap ci kasso bi lolu nak lañu né mënul nekk parce que mënuñu wax euh, processus électoral bu fiable sans pour autant ñu wax acteur yi nga xamante ño ci si nekk dañuy libre mëna participer mëna def concurrence bu loyal ba nga xam sénégalais ñoy décider kan mooy mooy falu ak ku dul falu mais koo xamante ni dañ la jox ay droit sénégalais yi voté la ñu jël la ne la say droit yëpp kenn du ko respecté ñun pour ñun loolu ndaxe baay la te ñuy wax nag

participer à des élections mu nangu ni bu Sénégal dogalé dafa war nangu li Sénégalais dogal Té tay Khalifa Sall amatul dara lo xamante ni daf ko wara def ci kasso bi dañuy demander ñu libérer ko comme gis nañ ni nak toll ni suñuy préoccupation jëluñu ko en compte ci dialogue bi j'ai pris la responsabilité de quitter la table du dialogue ba nga xamante ni euh, FSDBJ loolu lay suivre parce que xam nañ ni fii nii amul benn njëriñu Sénégal bu fiy génn lu dul événementiel ak communication politique bu gouvernement bi bëgg a def.